bismillahi rahmaani rahim wala xawla nga xam ne laa xawla ji dangay ngay foofu waaw ne wala xawla wala quwata illa billahil aliyil azim muy benn yoon nga def ko ba mu fukk nag loolu boo ko defee ci waxtu suba tey mel ne set nga ci mboolem sa bàkkaar yépp yépp yépp ba mel ne bis bala sa yaay juree te xam nga ne bis bala sa yaay juree moom booba amoo dara ci bàkkaar te it suñ boroom dana la fegal juróom-ñaar fukk ak ñaar ci ay bunti balaa yoo xam ne ci yow la jëm si woon te it balaa yu naroon a diis lool lay doon ndax yee ca naroon a gën a woyof mooy ngaana mbaa siti yooyu yëpp nag yàlla fegal la ko ba du agsi ci yow te it dalay booleeg waxtu wa nga defee loolu ci suba dalay booleek moom yàlla juróom-ñaar fukki malaaka yoo xam ne dañuy sax ci di la sàkkul njëggal waxtu woowee nga ko defee ci waxtu suba wa ba guddi ñu sax ci rek di sàkkul njëgal ñoom juróom-ñaar fukki malaaka yooyu lii nag nee na daa jëw ci addis yonant bi ñu nettali ko fii rek ndax nga xam ne njëriñ lu rëy la nga fonk ko ba tey nee na bismillahi rahmaani rahim sutura la kaaraange la suy dox suñu digganteeg jinne yi ba jinne duñ mën a lor taxul nag mu wax foofu ab lim boo xam ne moom nga cay jëfandikoo ci googu wàll nee na ku am doole ku ragalul yàlla boo jàkkaarloo moom te ragal mu lor la fexeel ba wax rek bismillahi rahmanir rahim juróom fukki yoon soo ko rek xamal ne mucc nga ci moom yàllaa koy nooyal daal di koy toroxal ba du mën a jëmale ci yow wenn ay moom sëñ bi ci bopp sax leeral na ne ba mu jàkkaarloog tubaab ba foofee ca jeewal waxan na bismillahirrahmanirrahim rahmaani rahim jooju ni mu ko waxee juróom fukki yoon daal di waxit na ko yàlla ak na mu daal wañar bi ko dem ba tey ne boo dee tëdd wax bismillahi rahmaani rahim ñaar fukki yoon ak benn bu bañ a ëpp bañ lu may na ngay nattable mat matut So koy nattable sa boo mottali ko ba mu wóor ne waaye bu la wóoree mat na moom bul ko yokk loolu ku ko def guddi googee du ca dee mukk deewu mbetteel kenn kuy sàcc du ko ca mën a sàcc seytaane itam du ko ca mënal dara dara mel ne kon daal loolu boo ko defee ci guddi googee moom mucc nga ci ayu seytaane mucc nga ci ayu ku jóg di sàcc mucc nga itam ci ayu deeguy bettee tudd gi mu seytaane nag mu ñaan yàlla musal lu ci ayu seytaane musal nu ci ayu lépp lu amu ay faw faw bokk na ci njariñi bismillahi rahmaani rahim saa yoo ko waxe rek araf wu ci ne daañu la ci bindal ñeenti junni yiw teggil la ca mooy jëggal ca ñeenti junni ñaawteef yëkkatil la ca ñeenti junniy daraja ci kaw nag ba ngay wax bismillahi rahmaani rahim am nga ci yéene wax ko ngir yàlla kese dal di koy wax saa yoo ko defee rek ñu defal la ca lii ba tey nee na bismillahi rahmaani rahim ba wàññee araf yi day nekk fukk ak ñeent ci kaw nag nga bañ wàññi waale alif gi nga xam ne moom la ñuy gàll ci arrahmaani muy bijji ma googee alif googu bu dee ci rasmul quraan maanaam la njëkk a bindee alquraan nga xam ne amutoo ni tomb amutoo maska maaska te itam yenn alif yi dikkutoon arrahmaani boobu daa bokk ci yi nga xam ne alifam googu ñëwutoon kon boo wàññi araf yi te bañ cee boole alif gi bijji miim gi ci arrahmaan kon araf yi bismillahi rahmaani rahim day nekk fukk ak juróom te it bëkk néegi sawara yi noonu lañ toll maanaam addis ba ne nag saa yoo waxee bismillahi rahmaani rahim rek yàlla musal la ci sawara ak bëkk néeg yooyu nga xam ne ñoo sawara doo joteeg ñoom dara mu ñaanal nag yonante bi yàlla dolli ko ngën ji teraanga ak ngën ji jàmm li fekk nga xam ne ku mel ni moom di laabire xeetam wi ma ngay am ngën ji la mu bëgg ca boroomam li fekk looloo ngi am yàlla na ko yàlla saxalal ngën ji teraanga ak ngën ji jàmm bokk na ci njariñu bismillahi rahmaani gone gi ñu yóbbu muy dali jàng saa yu waxee rekk bismillahi joojule moom xale bi ci boppam yàlla da koy bindal mucc ca sawara bindal yaari waajuram mucc ca sawara bindal koy jàngal ba tey mucc ca sawara saa yoo dee war daaba rek daal di wax bisimillahi sant yàlla deg ca su boroom day seet li mu ndëggu ya daaba jay dox mu ñu toll rekk mu bindal la ay yiw yu toll noona kon nag booy waritam leneen lu bokkut daaba ni ki oto wala saxaar rawante na avion bul fàttee wax kon tur yàlla woowu ndax yàlla tàggatal gi mu nu tàggatal yi rek day xéwal gu rëy rëy ni mu koy waxee ci alxuraan kon nag bu nu tàggatalee leneen loo xam ne na mu féetee kaw daaba moom mu ne su ko natt xiyaas njëkk ña ku leen ko waxoon duñ ko gëm kon foofu lañ ko war a gën a sante gën a teewlu xéewalam ak màggam ne secret yi nga xam ne daal moo ëmb ci biiru bismillahi rahmaani rahim dañoo bari lool lool kenn mënu ko takk njariña it noonu kenn mënu ko topp topp ba